jërëjëf jërëjëf am day eh, jëmmi sëñ Abbas sëñ bi mu ni moom day jëmmi sëñ Abbas waaw <laughs> ah, sëriñ bi mu ne jëmmi sëriñ Abbas ja sëriñ Muntaxa mooy tontu ni kàddu yi sëriñ Basiru Abdul Xudoos yu rafet yi moo tax sëriñ Muntaxa wax ne jëmmi sëriñ Abbas ja day mu nekk foofee ci daaru mu nekk foofee ci daaru njaboot njabootam gu tedd gii. yab la njabootam leen ci man. yónni leen ci yabal njaboot gi ci sëriñ Mountakha. bopp ci ñàkk solo. sëriñ xam ci boppam. ci ñàkk solo. jéego ba agsi fii. kon jéego yi njabootu sëñ Abbas gi jéego ba agsi fii. ak seen jotaay. ak seen jotaay bii. lu mu na daa am lu mu ko dolli rek. dama amoon am ci maam Thierno. waaye daa fekk mu am tawfeex ju am ci maam am na yaqin ne. nee am na yaqin ne. xam gi ma xam maam Thierno. xam gi ma xam maam Thierno. bu fekkonte ne fekkonte ne xamul sëriñ bi itam. xam gi ma xam maam Thierno. xam gi mu xam maam Thierno. ji mu ci am. gi mu ko bëgg. bëgg gi mu ko bëgg. doyloo gi am na yàqin ci am na yàqin loolu mu am ci moom. loolu mu kon de loolu dong laa am ci yoon bi. su fekkoon ne loolu képp am ci yoon wi itam. te xamul dara ci sëriñ bi itam. xam googu mu xam. xam googu mu ko am ci maam ko doy sëkk yóbbalub tey ak yoon loolu yàlla rek la ko seeral. ak Serigne Touba bi nga xam ma borom lépp. Thierno ab yóbbal sëkk. ci dundu jëm ci sunu dund jëm ci dundu àllaaxira. maam Thierno la ko toll. nee na maam foofu la ko toll. kon nag bu jëf ju ji amee. kon bu jëf rafet ji amee. ñu jëmee si ko ci ko ci moom. ne loolu xam na nam bu baax. daj na ma këpp. nee na daj ko këpp. xolam sedd na. xelam dal na. yaakaaram dolliku na. aw fitam dolliku na ak cawateem yokku na yitteem kawe na eh, lépp ci jataay bi yi ngeen jéego ci ci jataay bi ak seen jataay bi nee na loolu rek la ci mën a wone loolu la ci mën a wax ci làmmiñam itam nee kon noonu rek la demee jërë ngeen jëf nee na mi ngi siyaare sëriñ bi bu baax sëriñ Abbas. dégg na kàddu yi bu baax. sëriñ Amadou Bachir sëriñ bi na dégg na kàddu bu baax a baax. nee dégg na ko bu baax. des na ci sama xol des des na ci xolam des na ci xelam.